Ah. woote yàlla woote yàlla dafa gën woote leneen woote Serigne Touba bi dafa gën woote keneen yàlla dogal ni ñu bokk benn say bi ñu takk ñoo ñu bokk say donc ñëw ñëw maître fii ah, du ay du borom robb bi du ki ngeen di gis taalibe bi moo ñëw seet sëriñ bi c'est ça tey kii dafa ñëw màggal si le sant le sëriñ Tuubaa bu rëy bii looloo ko fi indi effectivement ànd ak suñu beneen xarit Amadou kan Diallo mais nekk un ministre de la République nekk directeur COSEC ñii samay xarit lañu dañuy ñëw màggal si kii su la ñëw màggal Amadou Kane Diallo Ablaye Wade la doon àndal xamul woon ni Touba nii la mel dana gis jumaa ji mais màggal gi yëg na ni màggal si ndax sonn na dama bëgg mu jëriñu donc samay xarit ñoo ñoo ñëw ci màggal gi ah ñi ah, samay invité yéen nag jaadu na nag ala ko ko ko ne day rek sa xel day dem ci lu bëree bare moo tax si moo tax ngeen laaj ko yéen koy laaj moom it mu am mbaaxu tontu leen wante du looloo ko yëkkati nag. te daal dafa ñëw sant si. dafa ñëw gërëm si siyaare si ay sëriñam. ndax ah, maamam ak sëñ Muntaxa ñoo mujj baayam ak sëñ Muntaxa ñu mujjee demoon Mbàkke sëñ taxa da koy fàttali saa su nekk. gis nga gis réew mi. dafa am loo xam ne sëñ Tuubaa dafa ne man maa ruu yi la ma yàlla dénk te day feeñ ci ay ay comportement ci ay yëf ak yu mel noonu su ko defee lii ñu fi dajale mooy sëriñ bi rek ñu koy gërëm nag di ñaan di ñaan mu dooleel ñu di ñaan ci mbaaxam mu yëkkati ñu di ñaan ci mbaaxam mu kaweel ñu di ñaan ci mbaaxam mu suural ñu di ñaan ci mbaaxam mu këllal ñu ndax ñun mag gi loolu ciy fàggu nga dégg xale yu tuuti yi nga xam ne daanaka amuñu sax juróom-ñaari at di jàng juróom-ñaari kon def yaakaar naa ni ah, ah, ah, sëriñ bi rek si sëriñ bi rek nekk génnuñu ko benn yoon mu mel nag ni sëñ bi dafa ne màggal da tàmbali ci picc ba gëléem xam nga loo ciy am njàngat mooy bi muy wax picc xamoon na ni nit si gëléem la ñuy jëm te xam ne daañu ko mën te tànku kanam la loolu mooy nettali explication bi rationnel loolu la te lu tuuti ba egg si mag bi ko sëñ bi di wax boobu mu koy wax ne sant leen ma sama sama sama tukki gi booba amagul résultat mais njottor na ko dina am résultat ne maa ngi dem ci lee maa ngi gañe su ma demee dinaa dugal trois bi tubaab bi ay bu yoo xam ne du ko mën a du ko mën a du ko mën a rës du ko mën a téye tubaab bi dina ma encaissé ba dina mujj a jaaxle loolu indi màggal gi tey taw na ñi ngi toog yoon bi am am nay ndox ñi ngi ñëw mi ngi dënu ñi ngi toog te kenn taxul nu sëriñ bi sëriñ bi nag dañ na lépp loolu nekk nag Gabon xam naa ni sëñ Mbàkke mm. da koy bàyyi ba guddi mu waxtaane ko coono gu nekk sëriñ bi daj na ko loo xalaat daj na ko ngir bisam bi tey mm. te amuloon kenn ku nekkoon si gannaawam su ñaane mu ne amin mooy ñaan moo naan amin moom kenn weetoon na fa de nee na am na ci bis boo xam ni ah. ci jazaawu Sakour nee na dafa toog ci xamuloon woon ni Gabon am na ñu mu dëkkaaleel mm. nee na mu toog ba see gis benn jigéen ju mag joo xam ni jóge ci montagne bi wàcc di ko toggal ñu toog ku mag ko xam ne amoon na ay juróom-ñeent fukki at ak lu ci topp ñu toog ba benn bis rek mu gis ay nit yu yërndu comme moom yàlla dafa defoon ci moom xalbul basiir mu naan ñii de xanaa mbokk ñii lañu ndax man am naa fi nekk ay dëkkaale te xaw ma leen woon ñu toog rek ñu ne ñu toog rek ñu ne ko ah jigéen ah, jigéen ji de wàcc na liggéey sëñ bi ne waaw waaw nañ ko waajal mu ne ko ah déedéet mbàkke yow mi gan gi ñun ñu néew su deewee dañ koy lekk eh, muy lekk sëñ bi na dënn ndeysaan ci xam-xamam xel mu ñaw ba ne waa léegi du ngeen ma ko jaay ndax gis na ñooñu su bato bi ñëwee daañu jëflanteeg ñooñu ci ay yëf yoo xam ne dañ koy soxla te xaalis koy jënd sëñ bi dugal xaalis du ngeen ma ko jaay xam nga sëñ bi dañ ko tëj ba pare di ko jox di ko di ko di ko jox mandat mu ngay yëkkati di ko def ci suufu xeer ba lañ ko doon tegal suñu paree tegaat ci xeer ba mosu ko laal amuloon poos da nga yaakaar ni am am gi am di ko jox sëriñ bi da nga yaakaar ni nee na da koo liggéey ñoom ñu gisee seen biir ne ñun daal góor gi seet lañ ne suy dox du gestu gis nañu moom daal ndeyjoor lay xool ak càmmooñ te su ko defee doo jóg dem kon xam nañ ni sëñ bi su su suy sëlmal dina ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mais mosuñu ko gis mu gestu ci sigan mag ne suñ ko ko jaayee su suulee suñu néew ngeen tulli ko ndax kii du gestu ñu waxtaan ba juboo ànd ak sëriñ na ko ndax nangu nañu ñu wax njëg gi mu leen danañ yëkkati xe suufu xeer bee jël fa njëg ba ñu jël njëg la sëñ bi waajal ko denc ko mu wane ginnaaw ñee di wane ginnaaw di dellu diggante saa biñ ko suulee fekk ñu fa biñ ko laaj sëñ bi néew baa nga daal raxmaan sa kër sëriñ yow loolu mooy xar baax yi nga xam ne jar naa waxtaane ci diggante ak Serigne Touba <laughs> di yéer jasaawu sakkur dafa am solo yii yii mooy mandal yi nga xam ni dafa am solo di koy waxtaane ci màggal gi ndax nit ki soo koy tagg da nga koy tagg si jikkoom uh-huh. wante nag sëñ Bamba soo koy tagg da koy tagg si jëfam de moom jëfam dafa rafet te tonowu te kenn fekk ko ci te te te bi mu ko amee daf ñu ko séddale ne ne ne yaa malikal mulki yaa man jalla an qawadin irham jami al wara ya hadiya rada noon na wax rek ne maa ko moom ak samay samay samay sama kii mais daf ko yaatal lu yàlla bind lu yël xoolal la nga yëg loo yëgul rek mu ne yow yàlla sa kawe sa màggaay sa yërmande ëpp na nit ki di la ñaan nga koy may ndax su du yokk dara ci yow du wàññi dara ci yow su leen dugalee safara du wàññi dara ci doo leen wàññi ci yow mais ma nga naan sa xasida ga ndokk yow yàlla ba nga ma nangulee kon ñun ñëpp dañoo tàbbi ci la wasalaamaaleykum wa rahmatullah